l'actualité sur sénégaspora.tv Avec sénégaspora.tv, vous avez une couverture de toute l'information à chaud, 24 heures sur 24. Politique, sport, people, société, religion, économie, environnement. Abonnez-vous vite sur notre site. léegi mbiru sëñ baara mhm. njaay mi nga xam ne wu lëmbe na àddina mhm. sénégal yëpp di ci xaar sëñ baara ak yow mii mhm. waaw yéen ñaar audio yi alaaji nu mu demee waaw euh, audio yi de euh, dégg naa ko comme ni ko sénégalais yëpp déggee ah. euh, waaye itam woon naa ci Cheikh Baara woon te nañ waaw mu am daal loo xamante bi incha allahu rabbi yi waaw dina yëkkati ay kàddu waaw kañ comme que nag ay audio yoo xamante ni bii. waaw eh, yi ñu dégg la pour le moment. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, mu nekk ci kii bi. Mm-hmm. donc nag bàyyi ba nday mbili gi ñëw. Mm. wax. ah doo wax lim la wax. Ah, non non déedéet. non alaaj yow la Sénégalais yi xaar. Cheikh Bara la Sénégalais yi di xaar xaaruñu ma. mais man mais ñun yow lañ ciy xaar. waaw man boo ma ciy xaar bàyyil ba alxamis ak jàmm. alxamis. waaw bu ko defee fan. bu ko defee ah ci takku show. nit ñi xam nañ rendez-vous bi. waaw alxamis ak jàmm incha allah rabbi dina expliquer lu tax. lii danañ ko laaj dana ko expliquer lu tax. bu boobaa sénégalais yi après ku ca ne. waaye mooma audio yi mooma. am na ñu naan dañ ko. ma ne loolu yëpp daal li koy leeral. mais alaaji waxal rek ndax mooma mooy alxamis incha allah ci kàttanu borom bi. doo ko leeral bàyyi ba alxamis rek. bàyyi ba alxamis rek sooy bu ko defee mu gën a neex. dañ mhm. mm. bàyyi ba alxamis rek. waaye <laughs> sooyibu nag yow tamit. <laughs> waa ji lu mu béy ba damay laaj audio ndax mooma. bàyyil ba alxamis bu alxamisee ci kàttanu borom bi yàlla nañu yàlla may. fekk tal bu boobaa. moom dana ko leeral nee eh, ñu laaj ko bàyyi ba alxamis rek. waaye dana ko leeral bu ñëwee kañ dana leeral. waaw damay laaj rek bu ñëwee kañ danañ ko ci laaj. te dana leeral. waaw baax na incha allah dana ci wax li nga xamante ni bii mooy li ump nit. lu waral li. baax na kon boobu mi ngi doon alxamis ak jàmm incha allah ca takku soow ngeen fekk fa Cheikh Bara Ndiaye ak Alaaji Sa Ndiogou Mbeng danañ leeral audio yi kañ la woon ak lu ko waral est ce que sax moom la ndax am na ñu ni du baatam dañ koo monte loolu lépp dana leer incha allah incha allah